fu ko Serigne Saliou daan dugal liggéey bi daan dugg. ah waaw man de xanaa amaan mbégte mbégte kontaan lool ci ni jataay bi tëddee ñun de ñu ngi ciy jariñu bu baax a baax a baax te nii rek la war a demee. Mhm. Eh, ñi yonent bi alayhi salaatu salaam yar ñu leen di tuddee saxaabatu rasul nii lañ daan def xam benn baat bu la te sa moroom xam ko. Mhm. jaraloon na leen ñàkk xaalis bu bari ngir dabu loola. ndax dañoo bëgg jariñu te mën naa am ca xam loola la seen njëriñ di wékku. moo tax jataay bii ni mu demee ñu santaat ci bu baax moom day sëñ abi bu leeral na ni ñu bari dañoo jàpp ni yarekat yi maa ngi dégg sax ñuy wedd ni daara tarbiya amut xañ na zalika mablaquhum min al ilmi mhm. nit moom fi xelam toll boo ko bëggee weesale rek mën na ko indil jafe-jafe sëñ bi yaram dafa bokk liggéey sëñ abi wax na ko liggéey mooy bay mhm. daraan bay gerte gu bari di bay dugub ju bari di ci sonn lool nag ci jamono bu dee fure ji day xam ne yaatuwaayu tracé bi quarante cinq la distance bi ci centimètre wax la trente moo koy ji bu dee fure ma wax la cinquante wala soixante wax la ni muy demee moo daan ñëwal boppam di saytu liggéey bi buy liggéey lu day mel ni liggéey rek ko ñor day bëgg kii liggéey yi dañ ko daan bañ ba ñun ñu ñun ñi ñun ñi nga xam ne mooy saytu tool yi dañ daan bay yoon yi muy jaar bayan bu naqari ba oto du fa mën a jaar ngir bañ mu mu gis ñu hmm. bu fajar daan jot ku mu fekk ci kër gi di nga ko wax yilla ju leer lan moo la tee liggéey ndax yar daa am ay yoon te yoon wu ne rek la mën a jaar ba def ci yow yoon woowu rek moo la ko mën a may di xool yére yi nga xam ne moom la ñuy sol bu ñuy liggéey di ko saytu bu wér waaye bu ko liggéeyee ba mu ñor noonu la koy joxe ñun daanaka su nekkee nu daar li ci ëpp sëñ Abdou Lahad moo fi nekk waaye da daan wax ni buñ bayee ba noppi mu moom neen li tax ba koy sant sëñ Abdou Lahad ngóom mi xam nga sëñ bi bi mu fi nekkee mus ta woote ci turu yoon wi comme sant rek dala daa doon sëb sëriñ waaye sëñ bi mus ta yoon wi mhm. waaye sëñ Abdoulaat santaane bi nga daan gis ñu koy def ci liggéey yëpp moo ko daan santaane dani boo gisee moo ko daan sant liggéey bi ngir bëgg a bañ a xam ni mu toll tax bu liggéeyee ba noppi lépp da koy joxe hmm. ñun ñu nekk ci daar ji xam nañ ni mosu ñoo dunde peppum ren dugub joo xam ne ren la déedéet hmm. te te boole koog loolu lépp day jël ceeb jël dugub jël jël jël keccax jël diw duy ca magasin yi ni ñi nga xam ne dañ fee jige te jamono bii dañuy am jafe-jafe bu dund bu ñëwee da yalwaan nañ leen ci sarax waaye rek lu tolloog dépassub tey wala ñaar bu mu bari ndax bu baree mën nañ koo yàq hmm. kon lépp lu mu daan bay day sonn ci bayan bi ba nga xam ne da ngay jàpp ni xaalis rek la ci wut waaye bu noppee lépp da koy joxe in tubdoo sadaqaatin fa ni'ma hiya mo def dara ñëpp xam ko baax na waaye nag wa in tuxfuuhaa foo wa xayrun lakum moo tax li mu daan def li nett nettali ci suuf li mu daan def ci biir ko ëpp fopp ndax daan na wax ni ku war a dimbali ñëpp boo dimbalee kenn kooko waxee ko day mel ni danga ko koo gënal ak ci des moo tax bu la daan woo di di la di la dimbali sax du bëgg yàgg kenn nga xam ko kon sëñ Ablaay lépp loo xam ni daf ko daan liggéey daf ko daan jox ci jamono boobu Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne moo fi nekkal xalifa général des Mourides jamono bi nga xam ne daf fee jógee da koy séddale ci njabootu sëñ Tuubaa gi hmm. waa kër soxna may nga soxna may ngaabu di ko séddal ñooñ samay jarbaat sax leen tuddi woon sama jarbaat yi mhm, bi fi sëñ Mourtala di nekk day mel ne day jàpp ni moom moom moom ñoo ko séq ñii ñii ñii ñi ñii fi nekk ñëpp seere nañ ko musta liggéey téye eh, eh, eh, Abou Hanbal nag dafa wax ni mhm. in tuhibba an dani bu fekkee da nga bëgg an yadooma allahu lakk xalaa ma tuhibbu mhm. fa dum xalaa ma yajib bu fekkee da ngaa bëgg li nga li nga li nga li nga mënta ñàkk lépp yàlla defal la ko hmm. yow fexeel ba sax ci di def li la war boo saxoo def li la war rek hmm. yàlla moo lay wut ci sa bopp hmm. moo tax saxoo gi mu saxoo woon lépp lu mu liggéey joxe moo tax ab dongaam musta am jafe-jafe ñun ñii day léegi lañ ko laa ko waxtaan ak sëñ abibu ni sëñ bi moom eh, dëddu niñ ko jàppeek li muy tekki dafa jafe lool aqi eh, xatu suxdi la daa man xat naqat tarku xas duhaa li xal bin li chamat dëddu dëgg rek mooy bul ñàkk dara ba tiit ci bul am dara tamit ba bég ba def loo wërta def waaye sollu set moom ak dëkk fu baax ak oto bu baax loolu tegtaluut bëgg àdduna bàyyi ko tamit tegtaluutum dof ndax sëñ bi bu muy toll nit ñi ñii di toll hmm. daan na sol rafet waaye waaye ñi nga xam ne dañoo dem ba gis ko amatul jotug def dara ba bopp bi mel noonu mu mel hmm. ñu ko ciy roy ñooñu hmm. xamuñu ni ñuy roye nit ndax royug julli daa laaju xeetoo moo tax maanaam booleem loo xam ni lu daan lu mu daan mu daan liggéey la hmm. da ko daan joxe ci bi fi ndax ndax joxe tamit sëñ sooy mi mën na ko seere ni sëñ bi da xam na nit ñi mën nañoo joxe xaalis waaye xaalis bu ñu ko dajalee ba noppi nag kuñ ko war a jox mu liggéey ko hmm. moo tax moo tax daan na dajale xaalis bu baree xam ne lu ñu bëgg na cee liggéey nangam waaye ko man te ba léegi loolu problème la boo xam ne daa poussé ci àdduna bi hmm. nit ñi mën nañoo joxe lempo mën nañoo joxe xaalis waaye bu ñu demee ba ba budget bi teer léegi nu ñuy def nag ba ki koy liggéey teg ko ci yoon loolooy jafe-jafe fokk ñu delluwaat njàngaleem sëriñ bi xool ni mu daan def di dimbalee ba ñëpp bëgg ko benn benn bis mas naa de wax ci rajo am koo xam ne dafa jël sama numéro bi mu noppee moo woo ma mu man taalibe nangam laa bokkut ci yoon wi mhm. ni ma waaye sëñ bi dama daan liggéeyloo di ma liggéeyloo di ma liggéeyloo ba bi biñ mujjee gisee damay liggéey mu ni ma ci faal walis woowu waaye nee na ba mu jëlee walis woowu ci lay yëkkati état këram maanaam nga xam ni euh, yàlla moom képp koo xam ne loo jël def ko ngir moom mu joxaat lu gën moom euh, euh, waman faqtu min shay'in fa huwa yuxlifu mhm. moo tax moo tax daal sëñ Ablaye sëñ bi santaat nañ ci moom santaat nañ ci moom bu wér a wér a wér ndax lépp lu mu mës liggéey daal mhm. da koy delloo da koy ñun xam ngeen xam ni li muy liggéey da koy delloo bokk ak liñ yor mhm. moo taxoon loola neex ci neex ci lool sëñ baa ngi ma koy fàtt léegi xam nga nit nit ki lay yar mhm. mu wóor la wóor yàlla ni moo la gën a yërëm sa bopp loolu loolu loolu loolu loolu day tax li nga nekk da ci rusa daw sax di nga ci rusa deltu ginnaaw waaye lu mu metti metteeg lu mu ñàngi-ñàng xam nga ni lii nga nekk sëñ bi moo la ci gën a yërëm te lu mu am da koy bokk ak yow lu dul bokk ak ñun lal wala bokk ak ñun benn bool defal nañu ko ci teraanga loolu nag loolu lépp rek nga xam ni moo waral teraanga ji tey lépp looloo ko waral euh, ak ak ak ak doxin wi nga xam ne nag lépp nit ku mënta ñàkk ci moom mi ngi ci moom lu mel ne xasida yi nga xam ne mm-hmm. alxuraan xam-xam ak xasaayit fi ñu toll am na benn benn koo xam ni dafa bokk ci ñuy weddi sëriñ nee na ma sëñ Abdou bi ma la gisee nga taxaw di way dama rus jàng xasida lay wax